Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakaatu yéen waa ngi nii tay siar siyaar waaw fan yii ñu ngi fi doon wax ci walu café ak ay njëriñam café nak lu bari njëriñ la lu yaatu lay ci aduna bi wax nañ ne bokk na ci marchandise yi nga xam ne ñooy deuxième marchandise moo xam ne moo ëpp lu muy dox ci wàllu àddina gannaaw pétrole bi ñuy jaay. kon lu bari njëriñ la loo xam ne ñu ngi koy jëfandikoo néew na it foo taxaw ci àddina te doo ko gis xëy na garab gi senegal Sénégal fii waaye bari na luñ ko fi jëfandikoo lu bari te it fii it am na fi place bu rëy rëy rëy rawatina ci gox bi fare ci wàllu Touba ba sax ñu bari di ko askane foofu. askane gi yit sax café Touba gi moom lu wér a am nañ ci tegtal yu wér ndax sëñ bu mag bi ci boppam am na lum bind te tënk ko ci ndax baatu kafe am na ci fuñ bind génne ci ay junj yoo xam ne ne moo ko wax lu ko ci yàlla may te loo xam ne xusuusi yàlla jag la yoo xam ne sañ-sañu suñ borom la yoo xam ne sax jotewut ak xam-xam bii ñuy jëfandikoo dara ndax soo demee am na bind na baat bi noonu alif ga rek laa cay wax ne alif ga mu ngi ca wax ne suñu borom ah ne defal na ko ci tiraanga may ak karamtuk yàlla defal na ko ci tiraanga tiraangay àdduna ak tiraangay alaxira kon ku koy jëfandikoo suñu borom mën na laa may tiraangay àdduna tiraangay alaxira tiraangay àdduna nag la sëñ ba tekki woon rek mooy xel mu dal ak xol bu sedd lu ne nag mën na ko am te sax yàlla du la defal loolu waaye koo xam ne suñu borom defal na la loolu mooy xel mu dal xol bu sedd loola tiraanga weesoo ko tiraanga yi ëllëg yomul xeer nag mooy tàbbi àjjana kon yàlla nañu ko ci yàlla defal lu bëree bëri la ay xusoosiye it ci wàllu wet gi ñu di ko gis dégg nañ ci lu ne it nit yàlla yit fii ñu nekk def nañ sëriñ si def nañ ci lu baree bari am na ko ma wax ne ma mos naa dem ci kilifa ne ma ci sëñ Mor Mbay siis sëñ Mor ne ko danga naan kafe mu ne ko kafe kese duma ko naan nen sëñ Mor ne ko kafe kese ko jox ken kafe duma ko jox kenn kon kooku am na lu ko yàlla may loo xam ne la mu muy def jaarale ko ca kafe loola moom du suñ kafe gii kese kese te loolu la ko leeral sëñ Mor moomu am na ko ma nettil ku wér ne am na tubaab boobu mu sañoo doon ñaanlu ne ko damaa bokk ci famille boo xam ne maa ci gën a néew li te bëgg a bëri la ñaareel bi dama am tawat yoo xam ne damaa sonal lool mu bëgg ñaanal mu saafara kooke ba mu waxee loolu sëñ Mor kafe la xel jox ko ko mu jox ko mu naan ko te nee na ba mu ko naanee la tàggoog loolee xisa bu gudd la sax waaye dañ koy tënk noonu rek te tawat jooju nga xam ne moom la tawatoon nee na tawat ji mu gënoon a bañ mooy kafe su naanaan kafe rek moom moom moom loolu dana ko daane te bu mu jëfandikoo café boobu la tàggoo taw ji kon loolu it am na jagle koo xam ne moom bu ci yàlla def koo xam ne moom dund nañ ko fii gis nañ ci yu baree bari dégg nañ ci yeneen xisa yu baree bari waaye comme loola taxul ñu wax dañuy wax lu aju ci wàllu wér-gu-yaram jëfandikoo koo xam ne moom mooy li gën a matale loola dañ ko ci boole rek kon moom café lu bari njëriñ la. baax na lool ci wàllu yaram ci soo koy naan di ko yemale waaw di ko yemale ndax mën naa tax xeeti coono yi ngay yëg yëpp da koy wàcce ndax ci sawar loola bokk ndax caféine boobu nga xam ne sax moo tax ñu naan café da caa bëri lool ba tax na ku koy jëfandikoo loolu lay jox ak cawarte gu bare bare bare baax na lool ci wàllu yuur gi ndax loolu soo koy def ñi koy naan te da ko yemale te saxoo ko jafe-jafe naax du leen yomb yàlla mën na leen a defal tawfeex ñu dund lu yàgg ba mage te loolu doo ko fekk ci ñoom jafe-jafe wàllu sadid yit ba tey duñ ko am ndax yu ci gën a bari télé yu bari ci wàllu sadid lay am te loolu suy jëfandikoo kafe googu ci yoon wu yem loola mën na koo defal tawfeex ba jafe-jafe sadid yooyu du ko am baax na lool it ca wàllu ñi nga xam ne dañoom am ay graisse soo koy jëfandikoo moom café ci yem yàlla mën na laa defal tawfeex ba graisse googu du la sonal te diw yooyu mooy yi nga xam ne ñooy fatt deret ji ñooy fatt yoonu yoon ji jaxasoo ak deret ji ba tax suba xeeti tension yeeg xeeti jafe-jafe xol yëpp nga di ko yëg loolu nag sooy jëfandikoo café ci teg ko ci yoon loola man na koy defal tawfeex ba loolee mën na koy bañ a gis baax na loolit ba tey ci wàllu suukar même ñi nga xam ne tey dañu amul suukar su koy jëfandikoo ni tawati suukar yooyu amoo ko yàlla mën na koo defal tawfeex ba loolee mën na ko bañ am ndax lii tax muy réglé googu nga xam ne suukar si day réglé moom kafe am na ferñeent yu ci ne yoo xam ne day réglé lool soo koy jëfandikoo mën naa tax sa suukar du yéeg ba ëpp noonu ne wax noonu ba tey baax na lool ci wàllu sadid yi ba tax na ki koy jëfandikoo yi moom it naax du ko yomb te xeeti naax yi ci gën a bëri jafe-jafe wàllu sadid yi moo koy def moo tax su fekkee mu ngi koy jëfandikoo loolee yàlla mën na ko caa defal tawfiix bu koy jëfandikoo it xeetu paralysé mën na koy bañ a yomb ndax baax googu mu baax ci sadid yi ba sadid dox nañu war a doxee moom it loolu da ko ci aar lool waaye su boobaa it na fekk muy lu baax na lool it ci wàllu foie alwares diw yooyu di ci taq jafe-jafe yooyu muy am ak xeeti tawat yooyu nga xam ne moo koy dal suy jëfandikoo café boobu moom itam suñu borom da ko ciy aar da ko ciy saafara bu baax a baax baax na lool ci wàllu bopp yooyu di ubu jafe-jafe bopp yooyu nga xam ne tey da ngay yëg ne daal yow muy nekkoo su naanee café ci naan bu yem loola mën na koy yóbbee loolu loola dañ. baax na lool ci wàllu xeeti góom yi nga xam ne day feeñ moo xam ci biir bi lay feeñ moo xam ci der bi moo xam ci yeneen parti yi xeeti góom yooyu yëpp su fekkee mu ngi jëfandikoo kafe suñu borom mën na koy aar ba xeeti góom yooyu yëpp da koy baax na loolu ci wàllu soññe ndax bokk na ci yi nga xam ne day soññe ndax day def cawart comme nag daa am ak cawarte ndax caféine boobu day nekk def cawarte day taxit sàddi di yëngu ni ñu war a yëngoo te loolu lu ci gën a bëri soo amee rek wàllu jafe-jafe yooyu nga xam ne moo doon am ci wàllu dencante loolu day wàññi ko waxtaan na su koy jëfandikoo it loolu mën na ko caa dimbale ba yenn jafe-jafe yooyu moom it du ko am antioxydant la it mooy waxoon naa ko moo tax yu bëree bëri da koy aar ba ci xeeti bëñ yi ngay gis nga xam ne jafe-jafe wàllu bëñ yi yenn xeeti microbe yooyu nga xam ne moo koy waral su fekk nit ki jëfandikoo café ci nos ko loola mën na koy defal toofe ba jafe-jafe yëpp day dañ baax na loole ci ñi nga xam ne bëgguñ seen yaram ëpp ndax waxoon naa ne day dindi graisse googu ay wàññi graisse ci yaram moo tax su koy jëfandikoo loolu suñu borom mën na ko ci defal tawféex ba yëpp day dañ yaramam du ëpp te dina tax ñi nga xam ne tey ndax graisse googu li koy waral yëpp mooy suukar su bari jëfandikoo suukar su bari suukar soo si nag su bari ci yaram mooy yóbbu nit ki muy bëgg lekk ba tax day feeñ lu fër léeg-léeg mu lekk ba bëgg a dee tuuti wax mu mu doyal su jëfandikoo kafe nag loolu day wàññeeku ba da koy wàññi ba nga xam ne lool duutu duutu amati su ko defee nag li tax ñuy ko ragalloo nag léeg-léeg ñenn ñi ndax toujours fajkat yi moom surtout wàllu docteur yi moom saa soo ci àggee néew na nga àgg ci tawat te duñ la wax ne bàyyi ko ndax li ci ne mooy ñëw ak kafe dafa yor ñaari nga naayal ñaari ñaw ko damay bax bax baax fa baaxi fiit comme ñing koy naane ñun duy duy dëppoog yoon liñ ci naan day bëri te duñ koy organiser lolé it may waral yu bare bare ba fu mu ni mëna def amna ko ko doon laaj sax mëna def bop yu di metti amna am na naan boo naan rek mu yobbu la ci lu mel noonu sa bop di metti man nga koy naan it mu yobbu la ci ñàkk nelaw ndax loolu sax mo gëna bari ñu bëree bari suñ ko naanee dana leen yobbu ci ñàkk nelaw terew naa am na ñoo xam ne nuñ ko naan luñ luñ luñ ko naanee gën a mën a nelaw waaye li gën a bëri ci xam-xamam soo ko naanee surtout ngoon ñu ci ëpp suñ ci naanee lu bëri mën na leen di yóbbee ñàkk nelaw bu dee ku jigéen ñi wérul it dañuy moytuloo mu may ko naan lu bëri ndax naan gu bari googu it mën na ko yóbbee mu am lu mu ci wàllu xale boobu te loolee du ci moom kon itam yooyu tax na ñuy koy moytuloo ñu bare bari naan lu boo koy naan lu bari dina tax ngay tuur ndox lu bari te loolu day wàññi ndox mu bari ci am te loolu soo amee rek nga gis xeeti néew doole yu bari bari wala jàngoro yu bari du dugg kon loolu tax na it ñu ko moytuloo nit ki daal su koy naan mu de ko naan ci naan bu yem te di ko jëfandikoo jëfandikoo mu normal su boobaa li ci xeeti njëriñ yëpp dañ ko gis yii ak yeneen sax yoo xam ne tudduñ ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa